mbokku internet Firi Infos ñu ngi leen nuyuwaat bu baax di leen ziare di si bés tey ñu ngi fii fii nga xamante ni moom mooy ñaari rakk yi tey na mu doon bés bi bi nga xamante ni euh, mooy bés bu doon doon xaar mooy le 5 septembre nga xamante mooy si Koungheul. ñaari dëkk ñoo koy célébré mooy Saint-Louis ak Koungheul Koungheul bu ñu ko démarré depuis 1995 ba tey ñu ngi ànd ak bés bi di ànd ak ña euh, mbooloo yi nga xam ne moom mooy ñoom ñooy waaw moo di xel fikrat yi kon mbokk yi ñu ngi ñii suñu euh, suñu plateau yi di dalal suñu benn gan ñu gën koo xam suñu oustaz moo Seck euh, moom nag kilifa la fii si dëkk bi fii si département Koungheul waaye nag rawatina ci taalibe ki nga xamante ni mooy Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu la bàyyi lépp ñëw màggal bés bi ko ta boo leen dalatu am na bàyyi li nga xamante ni wax na ko si Serigne Touba kon ñu bàyyi la ñu déglu ko Serigne bi ñu ngi lay nuyu bu baax. bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil euh, mursalin sayidina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yaqulu llahu tabaraka wa taala وكلا نقص عليك من أنباء رسلي ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى والصلاة والسلام على الله وسلم الذي روى عن ربه وعلى لي ولي لأجل أن ولي اصطفيته واتخذته لي وليا وفي طيه ومن عاد لي وليا li alde ajël an wali yi jere jeuf seigne bi si ñaani ci jërëjëf ci nuyo bi tay gis len nga ñew bi ci nga xamanteni moy mooy tante bi ci bisu ñaar rak yi euh tay ban taxawaay nga nga nga xam mom nga xamanteni mom nga fi ñewé dal alhamdullilah ñi ngi sante yalla bu baax euh ñew nañ fi tay ndek def ndigalu yalla tawar wa taala wala boog ndigalu yonent bi sallallahu alayhi mi ñu waxoon ne bu ngeen rombee ci dëri aljana yi nangeen ca for ñu ne ko yonent bi sallallahu lan mooy dëru aljana mu ne géew yi nga xam ne dañ fay tuddee yàlla. waaw yooyu de barab yooyu mooy mooy dëri aljana loolu kon mooy sabab ñu ñëw fii tey ci yaakaar lool te li ci ëpp yaakaar yi mooy li ñuy wax ñaanukaay la yoo xam ne li fi dañuy rombee ay dëri aljana romb leen te maanaam ngeen ngeen for ci meññante bañ ko laajee ne ko dëri aljana fii ci àdduna mu ne waaw dëri aljana am na fii ci àdduna mu ne ko fan am mu ci place yi nga xam ne yi dañ fay jaamoo yàlla dafa tudd yàlla Euh, kon foofu fu ñuy tudd yàlla dafa tudd dafa gaay tudd gaay yàlla dafa fàttaliku seen i jaar-jaar boobu benn dër la ci dëru aljana kon loolu mooy sabab loolu mooy sabab première mooy sabab pour pour ñëw fii incha allah. Euh, jërëjëf oustaz ba tey jëm suñu beneen laaj dégg neen kenn koo xamante ni borom xam-xam la ñu ko naataan waliyu la neen wax na xutbu samaan la muy ki nga xamante ni mooy suñu sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahima Niass wax na wax du am solo ci ki nga xamante ni mooy mooy borom Touba. ورنا فقد قال بهذا الجمال الأمجاد قديم تها مالك أحمد فليس يكسب سواء جسم فلا دب قطع وساه فهم يونون نجيب نقول نجيب من الجنة تلا way bi nga xamne moy bim ko tuddu way bo baye chebram ci bopam rodi lan min ko way bi ko ben ñaar fukki at ak ben moo tax ci ci boo demee ci tur mu ngi naan wali bani ihda wa isrina sana maziratun maqbulatun mustahsan waay bii ki ko woy mi ngi bi nga koy woy mi ngi toll ci ñaar fukki at ak benn waaye borom ñaar fukki at ak benn nag su fekkee nga xam ne dafa def loo xam ne maanaam wax loo xam ne da waxee ko ci làkkam su boobaa loolu noonu ak lum ci mën a wax dañ koy rafetlu même bu amee dara itam loo xam ne lii benn faay dañ koy jàppal nga mu ne nag kon su boobaa bu fekk nga xam ne rawatina fekk nga ki nga day laaj nekk nit ku ñuul waaye nit ku ñuul nit ku ñuul taxu da ñàkk xel taxu nit ku ñuul taxu la euh, dofee nekk nit ku ñuul taxu da suufee la preuve que ne nekk nit ku ñuul taxu la dofee nekk nit ku ñuul taxu da ñàkkum xel تاخذ تاخذ قد قال في هذا المجال الاحمجد قديم طه المالكي أحمد فليس يكسب سواد الجسم بلادة الفتى وسوء الفهم mu ne qad qaala wax na fi hada majal fi fi ñee fi ñuy waxee nii alam ju waa ju baax ju tedd xadimu taa ko xam ko ne liggéeykatu yonent sallallahu alayhi wa sallam kon ki nga xam te nekk mooy seexul xadim ki nga xam te nekk moom la ñu moom moo jëli woon ñaar rakka yi nga xam te mu yëm ko jëli woon ca biro ndar ba bés bu tey bii la ko defoon kooku noonu ci la Cheikh Ahmad radiyallahu anhu wax ne xadimu taaha moom mooy lëykatu liggéeykatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taaha moom nag moom la ba Cheikh Ibrahima radiyallahu wax ne fa taaha tajalli zaati taaha boobu nga xam ne yàlla tabaraka wa taala bi mooy feeñ ci taaha moomu moo dékku moo dékku feeñ fe feeñ waayu borom subhanahu wa taala taaha moom nga xam ne mooy dékku feeñ waayu borom subhanahu wa taala kan la am ku koy liggéeyal koo xam te ne kii Sénégal yëpp xam nañ ko mooy Cheikh Amadou Bamba ba loolu noonu ci la Cheikh Ibrahima radiyallahu di wax ne xadimu taaha liggéeykatu taaha waxul liggéeykatu Muhammadu de waxul liggéeykatu rasul xam nga ñi ñi xaadimu rasul lañ ko tuddee waaye Baye moom radiyallahu anhu bi mooy wax ci moom daf ne xadimu taaha ki nga xam ne moo liggéeyal Maalik yi nekk ci ngir imam Maalik Ahmad mooy Ahmad Bamba moom moo waxoon ne fa lañ fa yëpp sa sawaatul gis mi ñu ngi toog kenn koo xam ne coordinatrice euh, Moussa Kendo gis leen depuis ce matin ngi ñëw ànd ak ñi nga xam ne mooy équipe am di joxe masque di joxe sel loolu yëpp ñu gis ko pour yaatal pour bés ñu respecté li nga xam ne moom mooy les mesures barrières euh, kon Fama ñun gis neen yaa ngi ànd ak si équipe bi euh, wax dëgg yàlla soo ba tey toogoo ku nekk nga installé ko si si li nga xam ne foofu la war a taxaw ñu joxe li nga xam ne moom mooy masque yi en même temps di joxe li nga xam ne moom mooy moom mooy moom loolu gis nañ sa taxawaay loolu ban ban ban yëg ngay yëg nga am tey si bés bi ba def loolu tey. waaw salaamaaleykum Darame nuyu naa la di nuyu waa télé bi ñëpp di nuyu tam waa Koungheul yëpp euh, Fama Samb la coordinatrice Moussou Kendo Moussou Kendo benn mouvement la mais pas mouvement mouvement politique mais pas pour politique politique nii rek mouvement politique de la initié par euh, le ministre maire Mayacine Camara ñun Euh, ñu dox ci lépp loo xam ne département Koungheul la commencé nañ déjà ci reboisement euh, dem ci mosquée yi dem ci école yi ci quartier yi euh, dem aussi hôpital def euh, benn journée de reboisement nekk atam ci yeneen activité léegi ñaari raaka yi nii ñu ne pourquoi pas ñu ñëw séddale fi nga xamante ne mooy ay gel ak ay masque pour mën a aar askan bi képp ku dugg ci tente bi rek mën a am masque laal gel parce que ku ne xamante tamit Covid bi ba léegi mooy fi ba pal falwaa ñu jël ci ay mesures pour mën a xool duñ ko éradiquer même buñ ko mënul dindi tamit ñu ko nga xamante ni du mën a propager soxla suñu ñëw tey fii mais amoo leen benn jafe-jafe par rapport ak nit ñi boo leen joxee masque ñu koy takk wala ñu xamante nii mën neen wax ni sa jëwriñ la muy jëwriñ la ma jow mbéy tey loolu ñu koy wooyee te gis na ni ñëw nga taxawaay fi nga xamante nii moom mooy siiw ñaari rakk yi ànd ak ñi nga xamante ni mooy délégation Alioune Badara bi euh, euh, ban ban taxawaay nga am tey si li nga xam ne mooy solo bis bi waaw maa ngi lay nuyu euh, di wax di sant yàlla bu baax a baax a baax ndaxte ñaar raaka yi daaw defuñu ko woon ngir corona bi ci lu gàtt kon ron bu ci taalibe yi amee ndigalu sëñ bi ban def loolu dañu sant yàlla ñun waa Koungheul parce boo xam ne nii la yaakaar naa bu ne Ndar bi nga xam ne foofu lañ ko jullee woon Koungheul moo si topp kon loolu tey la ñun Koungheul ah, bis bii nag dafa am solo si département Koungheul am solo aussi si suñu leader Alioune Badara Ly moo tax moom bis bi saa bu jotee rek li nga xam ne waajaay bi yëpp da si ànd ak waa kuréel gi di si jàppale ba si bis bi moom moo tax tey jii fi teew ah jërëjëf euh, Madiaw gis taxawaay bi gis nañ jàppale bi euh, ndax euh, li nga xamante ni moom mooy matoog bés bi par rapport li nga moom mooy xam nga jamono yi ñi ba tey xel ci ñi nga xamanti ni mooy ci masque yeeg sel yi ndax taxawaay boobu en tant que leader sa responsable ndax bàyyi na si xel wala na lépp. bàyyi na si xel bu baax a baax a baax.

ci prévention bi moom jàpp na si yamut si loolu bis bi nii bi mu jotee aussi ni mu koy defee chaque at di ko si xéewloo dafa jënd ñaari nag yoo xam ne nii am na maanaa trop daan ne jox ko waa kuréel gi ne leen aussi ñu ko jël ko si berne yi si xéewal yi yaakaar naa Alioune Badara la jàppee si bis nii nii nii. jërëjëf Madiaw ñu bàyyi la xëy na tamit it yi ñu bàyyi la bu baax nga nga tàggatoo askan bi lay sant. waaw ah, ñu ngi leen di nuyu di leen rek di sant waa Firi Info yaakaar naa ne tey jii caat. bu taxawee tànku taaw ngeen def euh, ba ngeen ñëwee yàggut mais tey jii seen liggéey ñëpp ràññee nañ ko ci Sénégal waxuma sax département Koungheul waa région de Kaffrine Sénégal yëpp tey information bu xaw Koungheul ñu ngi jot moo tax leen di ñaanal rek lii ngeen yor mu yokk ba ab télé sant naa leen gërëm naa leen ngeen jëf. merci beaucoup jërëjëf ma jaw voilà asalaamaaleykum ñu ngi ak euh, Serigne Abdoulaye Wilane euh, nga xam ne wax dëgg yàlla kilifa diine la moom kilifa lépp la mu ñëw tey si ñaar rakk yi Serigne Abdoulaye kon ñaar rakk nga ñu bëggoon tey ñu xam sa ñëw tey si ñaar rakk yi lan moo ko wundu waaw ñaar rakk yi sama ñëw si li ko lu neexal li ma gën a motivé dëgg dëgg dëgg dëgg ren mooy ci mbay ko dafa kenn dafa kenn si man dama sàmm sekk kër ba nga joxe seex lay man maa dama këram ñaari yoon félicité ko wan ko ne ko wax dëgg yàlla kontaan naa kontaante boo xam ne mënu ma wax kontaan fi mu ñaar rakk yi kuréel gi mënu leen a fay mënu leen a fay ndaxte fekkoon ne defuñ kuréel gi taxawuñu woon dana bëri ñu dafa dem ndar dama dem dem dëkk defee ji kon nag bu fekkee nag xale yi góorgóorlu nañ ba organisé loo xam ne fi mu toll nii jàpp ne Sénégal tey bu nekk premier nekk deuxième loolu dafa doon loo xam ne képp ku jullit nga xam ne islam ñor na la da nga si dikk ku dikk it fa nga nekk yaa nga joxe say ñaan yaa nga sa alquran man day kër bañ commencé laa commencé bañ kër jàpp kër bañ jàppee ñaar rakk yi laa commencé jàng alquran amee comme nag ñetti kaamel yoo xam ne man bis bi laa tey jii tey jii tey su fekkoon ne duur délégation bi teel a ñëw bos danaa danaa mottali ñeenteel bi loolu yëpp pour. kontaan si bés bi ak euh, wax dëgg yàlla sigil sigil bi nga xam ne bu ni sigil nañ ko waa Koungheul sigil ko askan bi loolu moom gën a motivé maam Samba Seck mi nga xam ne moom la ñu nii tey mënuñ koo fay lépp lu baax fii tey def na ko fi alalam taaxam léppam defee lépp lu xam jox na ko doomu aadama yi lépp xam jox na ko doomu aadama yi su demee nag ba dem tey ñu jël xam ne seex lay seex dafa bañ ko joxee sero fóot dafa fekk ne kenn xalaatu jël lu amul kenn ko si wax dara ñëpp si ànd ñëpp a ci ànd man de ànd naa si te ñëpp xam nañ ko rafetlu nañ ko man nag dama dañ di sant kuréel gi nga xamee ne gi ñoo organisé lii wax dëgg yàlla bu fekkoon ne jënga lulul dëgg du yàgg te ku ne xam ne lii daan kanam la xamee ba nga xam mu nekk ñooy la gën a bëri nit lan la gën a baax la gën a neex kon nag ñii di ko jiite gëm nañ ne liñ def liñ leen jox man nañ ko xattan nañ ko bëgg nañ ko ci li nga liggéey Sëriñ Tuubaa nañ ko war a liggéey kontaan si bu baax a baax a jërëjëf ñu ngi woon ak Ablaye Wilane wax dëgg yàlla moom muy kilifa diine nekk ci dëkk bi di liggéeyal diine nekk ci nga xam ne l'islam rek moo ko ñor mu ñëwoon ci ñaar rak yi représenter Samba Ali Ba waye ñëw tamit ngir jëmum ndax lim séq euh, këru murit ak l'islam ak diin bima ma ñu lay sant bu baax bima ma sama kër ci Cheikh la dem rek dama tatagal ko ñaan fa dama fa wara ñaan ne ko nak ma ngi fa ba baax na euh, abou Abdoulaye jërëjëf euh, moo internet yi ba tey Firi impo ñu ngi toog ak kenn ko xamanteni mam Cheikh mam Cheikh Fall ñu gën ko xam ci mam Cheikh Fall te gis neen depuis soo ba tey mu ngi toog toppatoo li nga xamante ne ànd ak gars yi si liggéey bi wax dëgg yàlla mu nekk koo xam ne Baay Faal la ndax murid la ndax ku xam mooy juróom ñi nga xam ne kii si la bokk wax dëgg yàlla maam Cheikh ñu nga lay nuyu bu baax di la ziare di la dalal fii nga xamante si plateau bi fii si Firi Info gis tey sa taxawaay ak naka nga gisee tey bés bi si bii nga xam ne mooy mooy ñaar rakk yi jërëjëf Dramé Euh, ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di julluñ ci yonent bi di sant suñ suñu ñaari waajur di ñaanal suñu waajur ba nekk ci àllaaxira muy sunu baay Balla Fall mi xam ne nii ñëpp ràññewoon nañ ko ci ci yoonu murit yàlla dogal nag ñuy juddu nekk juddu ci muridisme parce que ñoo juddu fekk suñu waajur nekk ci murit donc dañ la dañ ci sant yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax ah wax nag ne bis bi rakk yi nii wax dëgg yàlla dañ ci sant di ci gërëm ñi nga xam ñooy waa kuréel gi di leen ñaanal aussi yàlla may yokk leen wér yokku leen euh, taxawaay yokku leen ay at bañ mën di ko taxawee ndax wax dëgg yàlla organisation bi rafet na macha allah ñun fi ñu waroon féete ñoom ñoo ñu fa féete ndax euh, mouridisme moom dafa yaatu ndax yàlla yàlla dafa am lu mu ci wax euh, sëñ Tuubaa dafa am lu mu ci wax ndax dafa sëñ Tuubaa lu ci wax mooy da ngay joxe addiya wala ngay wala wala ngay jàngi xasida wala ngay jàng alxuraan loolu la suñu loolu la suñ Tuubaa santaane ci yoonu muridisme te ñii ñoom ñu ngi ci ñun nag ñu ngi ci beneen wàll bi wax dëgg yàlla eh, danañu danañu danañu danañuy danañuy joxe suñu ñaq ci bis bi danañ joxe suñu ñaq ci lépp loo xam laaj nañu ko ci yoonu murid danañu danañu danañ ciy baax a baax baax wax dëgg yàlla xeeb ko lool nag macha allah xeeb ko lool macha allah. ba tey nga continuer ci li nga xam ne si li nga nekkoon ban message ngay lancé ngay lancé ñi nga xamante tey ñu ngi lay seetaan ci Firi Info. waa Firi Info dañ leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla yokku leen ndax euh, vraiment li dafa baax ci dëkk. ndax loo xam ne nii dafay wéyal ay xabaar muy dem ba tasaaroo ci bi yëpp dafa baax ci réew dañ leen di ñaan yàlla yokk leen yàlla may leen ay moyens yu gën raw raw yi ba xam ne dañu ma a dégg fépp ci àdduna bi ngeen gën a ngeen gën a mën a wéyal seen liggéey di leen lancer euh, di leen di leen sant di leen gërëm di leen wax ne nag ngeen góorgóorlu ndax li ngeen nekk yombul ndax tasaare xabaar moom du lu yomb na ngeen ciy def ndànk tey duñ moytu te di te te di def li ñuy wax maanaam li ñuy wax ndey ji seex ngeen bañ a féete fenn ngeen ànd ak ñëpp population Koungheul bi yëpp ak ñëpp tijaan murid xaadir bàyyi laay ñëpp jullit chrétien ñëpp ànd leen ñëpp daal te bañ a féete ndax yéen seen liggéey mooy tasaare xabaar da ngeen ko tasaare ni waree te bañ koo tasaare ci ay parpala bañ ko tasaare ci lu nekkul lu nekkul lu nekkul lu nekkul maanaam waxu waxu dëgg waaw loolu daal laa leen di am lu ma leen di wax di leen sant di leen gërëm jërëjëf merci lii leen la nga xam moom bi jërëjëf merci beaucoup ba tey ñu ngi toog kenn ni il vient bi nga xamante ni moom la Samba Ba yebal fii fi nga xamante ni tey ci

ci soir religieux bu mouridisme mu nekk lu am solo donc boo ne ma nu ma bis bi def yaakaar naa ne excitation en tant que musulman que vraiment nekk na lu am solo euh, te yëg nañ suñu bopp carrément ne kungel nekk na une ville religieuse nekk na une ville aussi boo xam ne bu gëm

Euh, Tafa Guissé sans bañ a citer ñëpp ak Tafa Ndaw ñoo ñëpp ñu ci délégation bi donc mënuma tok te délégation amna solo ñu ngi feulé tok euh di leen gërëm ci vraiment euh, euh, teeru bi ñu teeru ak ganal gi ñu fi ganalé ak nit ñu accompagner vraiment ñu ngi koy rafetlu bu féké nak da nga wax message en tant que jeune euh, euh, dafa nekk lu am solo euh, parce que man loolu incarné man damay incarné leadership et management donc message bi may wax jeunes yi il faut que jeunes djel jël mom liñ mom moy le politique de développement de la réussite le politique de développement communal le politique de développement régional le politique de développement bo xamné tay Sénégal gi ñu bok kenn ku ne japp na fa nga nek leader nga fa nga leadership manager nga ba li nga développeur li nga yow li nga ci gox bi nga nga que ça soit sur le plan religieux que ça soit sur le plan politique que ça soit sur le plan social nga fexe ba un jeune modèle un jeune référentiel

ki ñuy roy niveau côté religieux côté développement du côté politique donc le lancer, jeunes référentiel mais de modèle modèle modèles positif loolu laay ñaax jeunes yëpp. jërëjëf monsieur Ndao ñu bàyyi la ba tey nga yegg si mooy seen nit ñi di kontaan bu baax di la gërëm si site bi nga xam mooy freiinfos.com ci doon xiyaar bi nu mu gën maa ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di euh, jaajëfal seen freiinfos bi ngeen nekk parce que man mii di wax ak yow euh, je suis un chroniqueur à la 2STV donc di def émission parlons tourisme culture et artisanat donc yéen sama waa kër ngeen li ngeen di def moom laay def maa ngi gërëm. gërëm seen xarañte di gërëm seen pastef ak votre professionnalisme di wax ne japp leen bu baax et puis le média y a un nouveau monde qui se crée te média mooy ce nouveau monde fexe leen ba média bi ngeen nek que lépp lu baax wala lépp loo xam ne day jëmale seen gox kanam ngeen médiatiser ko vraiment bu ngeen ko defee dina am solo maa ngi lay jaajëf. jërëjëf monsieur Ndao kontaan nañ trop merci beaucoup monsieur Ndao chroniqueur de 2STV jërëjëf merci beaucoup. mbokk yi ba tey ñu ngi ci liggéey bi ñu ngi toog kenn koo xamante ni ci kuréel gi loo bokk kenn koo xamante ni mën naa ne wax depuis bu ñu jàppee bés bi ci avant bu ñuy préparé base bu gis ni ki tey nii mu ngi ci gis nañ ku tamit démb ci li nga xamante ni moom mooy ci tournée bi mu nekk Baye Fall boo xamante ni jàmbar la. bàyyiwu dara mu sedd bàyyi ko kenn lépp koo xamante ni te boo ko gisee ne kilifa la ndax kilifa ndax professeur la mu jël yére professeur bi sànni ko fële ne day ñëw liggéeyal mam bamba ci li nga xam ne moo si ñaar rakk yi monsieur Tine ñu ngi lay nuyu bu baax di dalal fii suñu plateau gis nañ ni fan yëpp yaa ngi ñëw jàpp si liggéey bi en tant que murid yow nan nga gisee li nga xamante moom mooy le 5 septembre di ñaar rakk yi fii euh, ngi département Koungheul di ziar comme ni nga ko waxee sànq rek

sëñ Touba défié woon l'autorité coloniale wan ko ne man nag sama borom laa jiital ci lépp même bu ñu la waxee ne yow yaay borom ndar man sama borom moom moom te moom moom ñëpp. donc loolu dafa indi li ñuy wax complexe de supériorité la Serigne Touba bëgg a rey bëgg ñun ñii ñun ñu roy ci loolu loo tax ñu perpétuer lii nii ngir ñun au delà de xam nga français la ñu jàng donc mais taxul teewul ñun lu ñu war a nu ñu dañu war a jël suñu identité culturel jëmmal ko ci lepp waaw donc motax suñu colin suñu doxine suñu waxine bu li jotté école jo dañu dem jàngale ji def ci dañu def mais su passé ñu nekk suñu daara suñu lenen té lool mooy suñu identité fier ci nak waaw di ñaan yalla yalla def fi barke lepp buñ fi ñaan mu nangu yalla defal Koungheul mu mu tawfexé am naataange sam ñep inshallah rabbi rabi. jëf ñu bayila ba ngi contane bu baax di dalal bi la dalal gis ne ni tim euh, nga ne ren fi nga xot njëkk a euh, li nga xal moy le 7 septembre fan nga toog war a dem bagage damu ban yëg-yëg nga si bi nga ñëwee fekkee li nga xam ne mooy 5 septembre. vraiment kontaan naa ci lool te tamit fierté a gis naa ci solidarité tamit ndax am na ñoo xamante ne nii bokkuñu ci këru murit ay tijaan lañ ay ñasan lañ loolu lañu ñu ngi ci ànd donc dañoo jàpp ne l'islam lañuy lañuy la ñuy màggal yaa ngi gis kontaan ci loolu nag vraiment ci dund ko te fier ci nag gis naa solidarité bi jàppalante bi waaw loolu daal yëg-yëg am naa ko ci daal incha allah jërëjëf ñu bàyyi la nga nga mottali nga dem si liggéey ba tey ñu ngi kontaan bu baax di dalal ak ki nga xam ne moom monsieur Tine jërëjëf merci beaucoup jërëjëf jërëjëf mbokku internet Prix ba tey ñu ngi toog ak kenn koo xamante nii mën naa ni wax ni sax ñëpp bokk na si bés bi njaboot la si bés bi rawatina tey Euh, bés bi ñu dara daalee ko ki nga xamante ni mooy baayam muy suñu baay suñu maam maam Samba Seck yàlla na yàlla yokk leeram ci barki bés bi te ñu ngi toog kenn si doomi Abdou Lahad Seck Abdou Lahad tey gis neen nga def délégation bu am solo ànd ak ay kilifa bés bi ñu jël ko jegleel ko ki nga xamante moom mooy sa wayjur bu góor muy alaaji maam Samba Seck sànq dégg neen li nga xamante ni moom la def lépp loo xamante daf na ko wax nañ ko ko léegi dégg nañ ko te ñu ngi ñaan yàlla lépp loo xamante lu baax la yàlla na ko yàlla jottali li nga xamante mooy yiw boobu tey bu nga ñëwee dugg ba gis mbooloo mi ñu jël lépp dégleel ko koo xam ne sa papa la tey ban yëg-yëg nga am tey si biir bi Abdou Lahad waaw ah, asalaamaaleykum wa rahmatullah wa ñu ngi jaare mbokk taalibe murit yëpp ak mbokk jullit yëpp waaw yëg-yëg bii de mooy eh, eh, mbégte rek ndaxte wax dëgg yàlla alaaji ma Samba Seck waxuñ en tant doom waaye dañuy wax en tant que taalibe wala ñu wax en tant que rek ay seede yoo xamante nii mun nañ ko seede ndax jàmbaar la woon joo xam ne jàmbaaru Sëñ Tuubaa joo xam ne buñ ko tuddee bis mel nii rek ah, mën nañu wax ne mérité na ko wax dëgg yàlla liggéeyal na Serigne Touba ba wàcc laq na ngërëmal ay doomu Serigne Touba ñoo xamante ni toog neen ci xilaaf ak Serigne Touba gi yóbbaale neen ngërëmam kon bu ñu ko tëddee bisu mel nii rek képp kum njaboote wala képp koo xamante ni xamoon nga ko rek di nga ci kontaan ba tax na délégation yi ñu wuy si neen ñu ay dëkk yu bëri ñëw neen jaar kër ga ndokkeel ñu ci bis bi te dañ koo dégg rek ñëw waaye amul kenn koo xam ne yëkkati neen suñu téléphone ne la kaay tuddee neen suñu wayjur yu bis dañ ko dégg rek ñëw loolu nag ci lañ daf ñu bett lool sax dëgg fa yàlla luy wane rek ne kon moom mën na kanamam waaye mën na ginnaawam ndax bëri nañu ko wuy si ñoo xamante ni wax dëgg yàlla mbégte rek ak contentement lañ lañ lay yëg ba tax ñu ñëw waaw duñ la bàyyi Abdou ba tey ci ñu laaj bu ñu bu mujj bi nga xamante moom la leen laaj gis nañ ci ñu en tant que comme ni nga ko waxee euh, ban message boo xamante ni war nga ko mën a laaj lancé ñun ndaw ñi nga xam ne tey lu mel nii mag ñi am ko ñun ñu jéem see aw bu ëllëgee ñun ñu am loolu waaw délégation bi euh, suñ ay papa lañ àndal alaaji Mor alaaji Mam Mor euh, Mam Mor Seck alaaji Mor Diarra Seck ak sunu ay mag euh, Madiama Seck ak Malick baabu Seck ak sama ay rakk ak sama yeneen mag ak sama tante tante awalum waaw soxna Musli Seck wax dëgg yàlla njaboot gi ñëpp ñi fi ñëw ñëpp mënuma leen lim waaye su ma si limee noonu rek ñu yóbbaale ñu ci des waa message bi ñuy lancé mooy ak taalibe daal moo am solo ndax taalibe rek ci ngay nekk ba sax sax ci ba jigee si am lu mel nii kon loolu dañ ciy jël dañ ciy jël leçon ñun ñëpp ñu xam ne dara amul solo dul ak taalibe ak sax si njub liggéeyal sëñ Tuubaa waaw loolu daal la ñu ñaan yàlla toq ñi si te saxal ñu si barke sëñ Fall. jërëjëf ñu bàyyi la ba tey ñu nga yegg si sa dal ba ñu lay gërëm bu baax di sant ci ki nga xamante moom lañ daloon sànq moom mooy Abdoulaye Seck doom si Mame Samba Seck mbokk yi ba tey ñu ngi continuer li nga xam ne mooy suñu liggéey incha allah jërë ngeen jëf.